dem ak dikk bi jàppandeetut jàppandeetut ndax kàmb gi ba mu tojee ak léegi yàgg na ah, ñu bare bari dañuy dañuy tegg dañuy wëri wala bu ñu ñëwee danañ fi am 30 ah, minutes doog a dem te ku koo xam ne dafa am soxla yi 10 minutes ah, ñu woolu sa urgent nga war a dem ñëwaat kàmb gii rek kàmb gii dong teelaa dem loolu nag wax dëgg yàlla jekkul jaaduwut ñu ngi koy ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax ndax nekk gi mu fi nekk bu fi nekkul woon duñ duñ naqarlu dara waaw buñ ko defarut buñ ko defarut Euh, loolu sax danaa ci ñëw taay accès gu ma ci mais dañ leen ko wax ñu ñëw fi ñu ñëw fi ñoom xool ko biñ ko xool see euh, euh, de mënuñu ko defar waroon nañoo def benn mandarga bu wane ni fii danger ngi fi ndax fii damaa jëlale kàmb gi waaye lëndamaay bi donc bi ñuy dund doy nañu sëkk ay coono ki jafe-jafe ndax ku ne xam ne ne oto guddi oto guddi bu ko moroom otom tegee ay faaram du gis wala bu bu gisee la muy gis du leer te fii oto day ñëw ba agsi des fois mu des fois mu dugg ci nit ñi ñi jàppoo ci génn ko wala moo fay ab lenge mu génn ko ambulance bi yàpp malade war a dem jéemul war a dem jëndatu des fois day yàpp malaat bi ñëw fii te malaat ko ne xam ne ne wax dëgg yàlla nag ah, ah, ah ko fajut waroo yokk la metti te lii day yokk malade la metti nañ ci wax ngir yàlla mu saafarawu loolu daal mooy suñu yitte buñ ko defarul nag buñ ko defarut ñun waa koñ bi fas nañu yéene dajale la ñu am incha allah jéem koo defar waaye bala ñu ko defar nag faaw ñu leeral leen ni leen lii moo fi am ngir buñ ko defee rek mu am fu mu tege boobu ngay am na koo xam ne fii la amee doom laa wax am na koo xam ne fii la amee doom yu ci bëri mëne su koo wax waaye daal nañu xam ne ñun ànd nañu suñ Muntaxa ci lépp loo xam ne woote na ko ci liggéeyu sëriñ bi te ñu ngi koy ñaanal fan wu gudd ak wér bu bu bu kenn woote nag bu kenn wax ni dañ doon marche marche ñu wuñu dara naqari wuñu ay taalibe sëñ Tuubaa la ñu ànd ak sëñ Tuubaa ci li muy ba tax ñu bëgg a leeral liñ